honorable député Serigne Cheikh Thioro ba xam ne fi mu nekk euh, waa Touba ñoo fa teg population Touba ñoo fa teg moom bi nawet bi commencé léegi li mu distribué ci ay moto pompe pour soulager population bi ëpp na deux cent fee nii ci distribué woon lu ëpp cent et quelque jamono jii may wax fi yow fii nañ distribué lu ëpp cent loolu day day wane day wane ne li si mun taxaa di woote moom fekkoon na ko ci waaye nag yokku na dina dina ci yokku yokku dina gën yokk taxawaayam waaye di profité tamit di di woote comme ni ko moom ni mu ko wootee ni ko sëñ Cheikh wootee sëñ Bass Abdou Khadre mu wax ko sëñ euh, siñ ci kàddu si Muntaxa mooy képp koo xam ne am nga sa sa loxo jot na sa ginnaaw nga def nga jàppale population bi ci jamono ji métti ndax am na ñoo xam ne seen kër yi seen dund seen kër coppam moo moo moo lab ci ndox mi am na ñoo xam ne seen kër moo daanu am na ñoo xam ne amatuñ fi ñu nekk dem ku fat ëpp leen doole boo xam ne xañ na bu bu ay nit ñëwee wéeru ci ko mën naa dis ci moom kon solidarité bi war nañ ko gën a yaatal ñu am kër bu ñu mën ubbi dugal ci nit ñu def ko ñi xam ne ah, mën nañoo génn seen xaalis dimbali ay nit jëndi ceeb wala lépp lu jëm ci loo xam nit mën na ko jëfandikoo nga def ko ñu mën a jënd ay matelas am ñoom seen matelas yàqu na ñoo xam ne a na kon ñoo ngi woote wootuñ ko waa Touba kese Sénégal yëpp képp koo xam si ni bon volonté nga am nga loo mën a def yëkkati ko jox ko nit ñi nga def ko te yàlla tax nga def ko tamit ngir euh, dimbale ko si Muntaxa ci yéene ji mu am ci dimbale waa Touba ci jafe-jafe yi ñu nekk